Thank you. jërë jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique dafa may kàdd yoo xam ne sa Seck rotal na ko ci lëlu bi nga xam ne lëlu bu yàgg la bu mu defoon bu mu génnee mu wax ko mu jur ci ñun nag xeltu gu xóot parce que dafa ne problème mu Sénégal ca dëgg-dëgg buñ koy xool problème de gouvernance la. Dakar Matin. ne boo jàngatee réew mi ci anam yi muy doxee ci wàllu gune ci dëgg-dëgg kàddu yooyu day neex a dëggal. est-ce que am nañu njiit yoo xam ne senegal jaral na leen seen bakkan bu ñu kenn tontu di wax ne personne n'a le monopole di patriotisme xalaatuñ ko yor waaye njort na ne yéen ñi nga xam ne leen takkal ndombay tànk ñu tànn leen ngeen war ñu jiite. ah waruñu leen ko ëppale benn yoon waruñu leen gën a jub benn yoon waruñu leen gën a sincère benn yoon waruñu méngali sax seeni kàddu ak seeni taxawaay ak suñu yoos Dakar Matin waaye boo xoolee dem na ba tey jii boo xoolee bu baax a baax a baax réew mi ci dëgg-dëgg wax fi dëgg nekk kilifa jafe na kilifa wax mu dañ yomb na lool kilifa toog ci plateau télévision yi ratatatatat di wax te mu leer ñi koy seetaan ak ki koy interviewé sax si àqulaay taal na kilim wax sax gëmu ko bari na fi torop beneen bi timit moo di kilifa di wax muy dañ du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du sax juróomi yoon saa boo waxee gars ne ah ci prix suba mu danc wala jarul dóor sa doom nekk na mbir yu doy waar yoo xam ne daf na saraax dugg ci yoreenu réew mi ñu tax nag ma tàmbalee foofu tey parce que dégg ngeen fii ay kilifa yu maga maga maga maga mag ci ndombay tànk yi ñu leen takkal ñu toog ci plateau de télévision yi ñu ne leen seen TER bii ngeen di wax nii train express régional bii la ngeen wax du loolu la jar ëpp na ko lool budget bi ngeen ñu wax te te booba ñu ngi doon wax cinq cent soixante-huit milliards moo nekkoon sax ci budget bi ñu ne leen du dëgg ëpp na li ñu weddi wax ratatatatat wax tey ñi leen doon wax ne li ngeen wax du dëgg boo xoolee bu baax a baax dafa mel ni dana leen yay ndax waxuñu dëgg askan wi ci dëgg-dëgg ñaata la TER bi jar kenn waxu ko ñu ne leen dafa ay surcoût yoo xam ne def ngeen ko ci mbir yu doy yoo xam ne mi ngi ci TER bi la ngeen wax ne moom la ko Sénégal di jëndee ëpp na loolu ñu ne du dëgg dañoo contre Macky Sall ratati ratata toog di wax ku dee ak sa bàmmeel jamono yi am na lettre buy circuler ñëpp ci jot lettre boobu di circuler mu nekk lettre estampillée confidentielle secrétaire d'État ba nekk ca France tudd Jean Baptiste Lemoyne bind ko ministre de l'économie et des finances le 29 juillet 2018 lettre boobu ñëpp ci jot mu ngi daw ci réseau sociaux yi ñëpp jot ci lettre boobu li mu wax dafa leer je souhaiterais tout d'abord vous remercier par votre accueil chaleureux et la qualité des entretiens que nous avons eus à votre hôtel le vendredi 27 juillet au courant. Réunion bilatérale faisant suite à notre entretien du 18 juillet 2018 à Dakar en présence de l'ambassadeur de France au Sénégal. Sur nos différents sujets économiques, je me félicite que votre séjour de Paris ait permis d'obtenir des avancées notables, notamment pour ce qui la participation de la France au montant global des surcoûts financiers relatifs aux travaux du train express régional. En effet, sur ce point, nous nous réjouissons que sur la base d'une stabilisation des surcoûts, les avenants y relatifs est signé ou en voie de l'être dans les prochains jours. De notre côté, sur instruction du président Emmanuel Macron et en bonne intelligence avec les services du ministre Bruno Le Maire, notre gouvernement envisage de consentir des efforts financiers supplémentaires à hauteur de 15 millions d'euros sous la forme de prêts du Trésor, considérant de notre point de vue que les surcoûts seront à l'ordre de 140 millions d'euros. maanaam secrétaire d'État bi dafa ne ministre de l'économie des finance maa ngi rafetlu baax a baax waxtaan yi nga xam ne am nañ ko ba ma ñëwee sa hôtel di rafetlu nag li nga xam ne am na moo di déggoo gu ñu déggoo ci yenn projet yu ñu yëkkati te tamit seetlu nañ ci projet bi nga xam ne moo di train express régional lañ ko xayma woon da koy weesu ndax dafa am ay surcoût waaye d'accord nañ ci loolu moo tax suñu président Emmanuel Macron jox nañu instruction Bruno Le Maire di ministre de l'économie d'accord na ci ñun France dina la lebal quinze millions d'euros ba pare nag mu ne ko surcoût bi yëpp nag mu ngi toll ci cent quarante millions d'euros lettre bi am na kenn du ko mim cent quarante millions d'euros mooy quatre vingt onze milliards de plus cent quarante millions d'euros mooy quatre vingt onze milliards de plus ca lañ ñu waxoon ne moom la TER bi jar bu nekkee ne lettre bi du dëgg nañ ko génn miim wax nañu lettre bi du dëgg cent quarante millions d'euros yooyu am na leneen saxlu ci laxasu ñu ngi koy gëstu Alstom dafa am leneen lu mu laajaat ngir baral liggéey bi ngir yàkkamti nañ ko inauguré te ma leen yëgal ne TER bi buñ ko ubbee noonu dañ ko tëjaat ba juillet 2019 doo ko commencé liggéey bi ci yoon yàkkamti nañ ko inauguré pour effet de spectacle ak effet campagne électorale ñu yokk ci 140 millions d'euros loolu la ñu wax de rax ci dolli France ne daf ñuy lebal quinze millions d'euros yoo xam ne kenn xamul ci naka la lañu koy lebalee waaw ana ñi fi nekkoon di wax ne terre bi li nit ñi di wax dara amu ci France bu ñu nangoo lebal quinze millions d'euros dafa fekk ne li ci ëpp ci alal yi ci entreprise française rek lay dellu kon mu lebal ñu jox ay entreprise am xaalis dong la bu kenn miim dama leen liiral ay chiffres exacts yoo xam ne montant yoo xam ne ñoom ñoo ko dugal seen gafaka groupement Eiffage SN Eiffage Rail Yapi ak Merkensen den laal ci koppar lu toll ci trois cent deux milliards neuf cent vingt neuf millions cent deux mille francs cinq cent vingt sept francs CFA. NG Uno ferroviaire Thales Communication France dina laal. deux cent milliards deux cent quarante quatre millions neuf cent cinquante mille zéro quatre vingt huit francs CFA. groupement NG contre Synthes compagnie internationale de maintenance dinañ laal vingt deux milliards cinq cent seize millions six cent soixante sept cinq cent quatre vingt et un francs CFA. Alstom transport dinañ laal cent quatre vingt douze milliards millions cinq cent soixante sept francs CFA Jetran 7 milliards 431 millions 266 117 francs CFA Eiffage 7 milliards 403 millions 638 mille 139 francs CFA ak ay société HFW 398 millions 133 mille 586 lay laal kenn ku tudd Malick Dieng 48 millions cent mille francs CFA groupement CPS Asens Capital Partner di laal deux cent quatre-vingt-quatorze millions cent vingt-six mille zéro quatre-vingt-douze francs CFA boo ko totaliser lépp dina toll ci koppar sept cent soixante-dix-sept milliards six cent deux millions six cent vingt-sept mille six cent trente-cinq francs CFA 777 milliards 602 millions 627 mille 635 francs CFA waaw léegi ci loolu may laajte rek ña takkoon rajo di miim nañ takkaat rajo ne lii nit ñi wax dara amu ci dañoo sos dara amu ci ki ma ci gën a yërëm nag mooy le ministre de l'économie Amadou Ba ndax xam nga projet bi APIX moo koy piloté Mountaga Sy defal mu def rek lu tax loolu sax mu gën cee sonn projet président bu yéex moom lañ koy tuumaal ne moo koy jéem a bloqué ndax seen biir dafa am xeexoo bu réeree bi ci am premier ministre neexawul ak Amadou Ba. Euh, Amadou Ba jàpp nañ ñoom ne dafa am réseau boppam bu koy protéger dafa am ay projet président bu yéexee ci moom la waaye ndeysaan moom moo war a dañ dañi wuti alal ji ngir dugal ko fi lu ko mooy rek ñu wax ko lu ne ci projet bii dañ ci dellusiwaat. ndax conseil d'administration APIX bu mujj rapport bi jot nañ ko din ci dellusiwaat ngir waxtaanee ko ci anam boo xam ne dina ànd ak dal buñ ko commencé ni dañ koy inaugurer dañ leen wax benn par benn alal yëpp ñaata la toll ak luñ ci dugal ngir nag alal jooju lu seen alal alalu réewum Sénégal la askanu Sénégal moo ko moom kon yelloo na ñu wax leen ne seen alal fii lañ ko dugal nii la demee ak nii loolu rek lañ ci jublu gouvernance sobre et vertueuse lañ waxoon waaye waaye dañ ci riigu riigu ci sobre ak vertueuse boobu bu nekkee dëgg la ci ñun ci loolu rek laay wax ne DG AGETIP mi nga xam ne tuddaloon ko benn marché bu ñu surfacturé de un milliard dellu siwaatuñu ci am na ndaw su muy persécuté ca biir AGETIP parce que ñang la sant jàpp na dañoo mbokkee bokkuma ak moom dara marché AGETIP yëpp ay patriotes yu nekk seen biir yu jàpp ne lii jaaduwul lii ci tumurank réew mi lay mujje ñoo ko yëkkati jébbal ñu ko kooku xamewu ci dara te ñun ñoo baaxeewul sëgg ci benn nit wala sëgg ci benn structure di ci wax di ci wax di ci wax ndax day nuroog acharnement te loolu ñoruñu ñun patriotisme la ñuy njëkk a dawal xeexuñoo kenn contre ñu kenn àndu ñoo kenn li may wax di ko bamtu saa su ne senegal rek moo ñu ñor marché AGETIP yëpp yoroon nañ dossier bi mais comme tuddoon nañ boobu persécution ci am dañ ci dellu ci waat détail ba mu jeex tàkk nga xam ne li ñuy wax ndaw soo sox umpale na ko ci beneen mbir mi may dellusi si moo nar a nekk mbiru Khalifa Ababacar Sall dañuy wax dama dama ciy wax dinaa ci wax ndax lu jaaduwul boo ko gisee faaw nga yuuxu wax ko te man rek maa ko wax dégg ngeen lu professeur Abdoulaye Bathily wax nee na cinquante ans de combat politique mus sa ci anam bu mel ñu instrumentaliser justice contre des adversaires politiques mu ne dafa jéggi dayoo waaw lu jéggi dayoo nag faw ñu wax ko takki rajo yuuxu ko weer leen bés ni ki tey dama bëgg ngeen di jël bic ak feuille képp ku yor dossier yu mel noonu ngeen di bind seen tur ndax te jii juge yi xamante nañ seen biir lu nit capable ak lu nit capableul dama ne magistrat yi xamante nañ seen biir xam ne lu nit capable ak lu nit capableul kon dama ne nguur Macky sàll am na lum ñu jox ci ngëneel mooy mi ngi wan kii kii et les masques tombent ñu xam kan ci dëgg-dëgg la réew ñor kan Dakar Matin. moo nekk ku sàmm ngorom dignitéem wóolu yàlla dénk ko boppam te du nangu ñu koy këll-këllee ci post bu mu mën a nekk nag muy juge magistra ak lu ne dina xaar verdict le 3 janvier mais yàgg naa leen wax ne daanaka si je m'en foutisme moo am ci dossier xalifa Ababacar Sall gis ngeen coow li muy bari yëpp décision bu Malick Lamotte rendroon balaa maa ñëw sax ci cour suprême Malick Lamotte décision ba mu liiroon parce que ñu bari ñu ne bind ko kon décision daal bi mu liiroon la ñuy mën a yem sax def na danse du tàngoor xaw na rafet rafetal xel mënees naa jàpp sax décision bi ndax moom gàntaloon na bañ ne état bi mënut a doon partie civile ci mbir mi ndax do alalam moo ci dugg du fond de dotation. du fonds de concours du lenn lu alal di dugg ci biir mairie de Dakar bàyyee ko ci état bi leer na nañ kon bañaloon na ko loolu condamné Khalifa xalifa ans de prison ferme cinq millions de francs moom ak Mbaye Touré dañuy wax ne sax Khalifa rek laay tudd mais Khalifa bi bu génnee kaso ñi topp ñëpp génn Mbaye Touré président diggoon na sëñ Mountakha dina génn kaso <laughs> mais mënut a génn bu xalifa Sall génnee kaso ñoom ñëppay génn. parce que ñoom dañ leen ci taqalaale rek parce que mu ñoon sepp xalifa dong rek dugal ko ci mbir mi. Dakar Matin gis nga dama ne Malick Lamone amoon na sax intelligence bi toll ni moom ba muy condamné loolu la waxoon ba pare ci biir condamnation la ma ci neexoon mu débuté état bi demande un virgule huit milliard yamale ko ci un milliard six cent loolu dafa am secret bu ci dëxëñu xam nga dañoo bëggoon bàyyi ñoom bokkum percepteur yeeg Touré. te dafa fekk ne 2014 ba ñuy fal Khalifa Ababacar Sall maire juillet préfet bi daf ko imposer ne ko pour mu voter budget mu ne ko duma voter budget parce que le budget est annuel. Dakar Matin. préfet bi ci boppam toog ñu toog di xoole juillet août septembre octobre ba novembre voté wuñ budget préfet bi imposer budget mais juillet août septembre octobre ba novembre. caisse d'avance bi mi ngi doon fonctionner ku ko doon fonctionner loo bokkum Malick Lamotte nag ngir mu seppi ñoom bokkum ak ture ci mbir mi ndax loolu moo nekkoon bëgg bëgg nguur gi mu condamné leen ci un milliard six cent parce que période boobu boo ko comptabiliser percepteur moo doon alimenter caisse bi kon nga gis ne lépp lu ñuy def xam nañ ko moo tax ma ne koo jàppee dof mi ngi wut garab yu mu la fajee waaye nag li métti mooy seen garab jafe lool wër nañ ba sonn pour ngeen xam ne ay nit ngeen ko séq nit ñu nite Demba Kandji yi moom ñëw confirmer condamnation bi ba pare nañ versé un virgule huit milliard Khalifa Sall ak co-accusé yi nangul état partie civile moo tax décision bi mu jël nii magistrat yi nekk cour d'appel kenn xamul noo koy jàngate kenn xamul noo koy jàngatee déedéet daf leen ëlëm waaye ma ne jël leen seen calepin di bind turu ñëpp di bind pour ëllëg ak si biir ku ne cëpp na lay bëgg fee am benn pureté wala bëgg fee incarner yenn valeurs yi ñu ne la yow yaa fi defoon lii démb ak bërki démb ku nootoo ñu wax dara ma ñëw ci cour suprême xam nga li may wax ne li ñu def ñoo ko tey cour suprême ba muy àtte Khalifa Sall dafa violer article 10 de la loi organique numéro 217 9 du 17 janvier 2017 Seybaani Sougou def na ci liggéey bu mucc ayib wax ñu lépp article boobu boobule li mu wax dafa leer dafa ne les chambres sont composées chacune d'un président de conseillers de conseillers délégués ou référendaires elles siègent obligatoirement en nombre impair dañ ne chambre yi président yi nekk conseiller conseiller délégué ou référendaire te bu ñuy toog di àtte mbir dañuy tóol dañuy tóol maanaam nombre impair lañ war a doon ba ñuy àtte Khalifa Ababacar Sall tooluñu six personnes moo fa nekkoon Amadou Baal moo président de l'audience Wali Fall Adama Ndiaye Mbacke Fall Ibrahima Sy madame Fatou Faye Lecor donc nangu ne chambre bi siégé na en nombre pair mu nekk violation bu leer boo xam ne ñëpp xam nañ ko bu baax a baax a baax ndaxte ñoom yàggul tuuti le 7 juin 2018 le 21 juin 2018 ak le 5 juillet 2018 chambre criminelle attewaat na rôle d'audience yooyu la 7 juin 2018 nombre impair lañu woon 6 lañu woon ak président bi Amadou Bal muy 7 21 juin 6 lañu woon ak Amadou Bal muy 7 le 5 juillet 2018. six lañu woon ak président Amadou Ba bi muy set kon ñoo tey xam nga lii ñoo ma gën a xam ñoom ñoom ma ko gën a xam foofu ñun dañuy def lu dul gëstu wante ñoom biir na leen leer na leen xam nga fan naa la nga am wooy dafa am erreur ndaxte euh, erreur matérielle dafa am texte bu ñu génnee euh, ci journal officiel bi ak texte bu député yi euh, voté méngoowul dafa am jiixi jaaxa ma ne dama ne nañuy teg lépp ci dëgg gàcce gàcce góor da koy moytu gàcce góor piir laa wax de góor piir da koy moytu ndax mën naa rey nit kon lu leer la cour suprême ba muy violé article bi moo ko tey luñ ci jublu nag ñu ngi leen di garder en repérage comme lu ñuy wax ci wàllu rajo di leen saytu bu baax a baax di wax nag nañu bàyyi xel bu baax a baax jiixi jaaxa am na ci kañ lañuy ñuy génne liste provisoire kandidaa yi ñii ñi ngi wax le 20 ñii di wax le 13 le 13 boobu nag moo mën a bàyyi xel ndax le 13 mooy combat Modou Lo Balla damay ñaaw njor ci lépp est-ce que du diversion bàyyi leen ci xel rek wax man ne am na wala amul de mais est-ce que du diversion. di wax rek ne xam naa dinañ jël tamit ay bés yoo xam ne dañ ko noppalu ci wàllu chronique bi ngir recharger batterie ndax fi ñu jëm ci ay élection présidentielle war ñu nekk en forme. waxtaan ak askan wi leen gindi loolu nekkoon kàddu yoo xam ne moom lañ dootal tey jii ci biir chronique bi di leen dig daje ci fan yi di ñëw incha allah seen site dakarmatin point com